Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de jàngeen jëf kàdduk Macky Sall moom la yéene kay xëyee tey réew mi quotidien di wax ci tontu li nga xamante ne moom njiitu réew ma woon indi na ko Ousmane Sonko gannaaw li mu xam ne ni dafa soppar ñi maanaam falsifié ay chiffre ci wàllu li nga xamante ne moom mooy bor bu Sénégal moom Macky Sall yéene kay bi nee na contre attaqué na ndax nee na ba muy bàyyi réew mi di Sénégal indicateur yëpp daanaka leeroon na kàddu yu ni mel moom la L'As quotidien daal di fësali tamit Vox Populi di delluwaat ci kàddu yu njiit réew mi wax ne li Ousmane Sonko di wax dara du ci dëgg moom njiit réew ma sax ne ñaawlu na ci anam yi nga xamante ne moom la gouvernement bi fësale yi lay kàddu ne kon audit bi nga xamante ne def nañ ko xamuñu sax ci yan anam yañu ko defee conclusion yi naka noonee tamit jotuñu ci ba ci sax joriñ yi nga xamante ne ñoom lañ ci jam baaraamu tuuma xamuñu ana lan moo wundu yooyu lay audit li moo tax le quotidien ne Macky Sall weddina li mu wax yépp dara du ci dégg ndax nee na bu muy bàyyi Sénégal lépp gongo bis bi le jour di ko feelu ne Macky Sall moom jubbanti na ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ci li mu yëkkati woon ni ay kàddu jëmale ko ci falsification chiffre yi yéene kaay bi ne moom ju réew moo woon yamul rek ci weddi de dikkaat na ci lan moo waral mu daal di dellu ci géew politique gi nekkoon ngir dooleel opposition bi fexe kon ba majorité bu am doole nguur gi du ko am contre yi nga xamante ne kon ko mu ci biir enquête yéenekaay bi di dëggal ni kon moom Macky Sall weddina chiffre Ousmane Sonko te yemu ca ndax ma ngay waajal boppam bu baax a baax ngir élection législative yu ñu dëgmal taxawaayub Macky Sall ci wàllu politique ak kàddu yu muy yëkkati les faux yéenekaay lim ci jàngat mooy moom jiital APR dafa mel ni ku salfaañe li nga xamante ne moom la xamoon ndax ñi ko fi jiitu yépp saa yu ñu jógee ci bopp réew mi dañuy màndu ci lépp lu jëm ci wàllu politique ba noppi sax tiye seen bopp ci doxalinu état bi loolee la ñu nemmeeku ci Senghor Abdou dafa jàpp ni moom Wade moomee amoon na yenn saay tamit taxawaay bi nga xamante ne mën nañ ci indi jiixi jaaxa ci wàllu politique waaye teewul taxawaayu républicain bi moom génnu ci yoon benn yoon waaye mu mel ni du lu nu mel ne nemmeeku ci Macky Sall muy jël dogal dugalaat loxoom bu baax a baax ci wàllu politique ba tax sax ñu investir ko te de liste ci élection législative yi ñu dëgmal ci élection législative yooyee jàppale ni pacte moom du moyu na taxawu Sénégal ndax njiit la di mat ko denjaay moo ŋàññ doxalinu Khalifa Sall ñi mu àndal biir yeewi askan xeex yépp moo nekkoon coppite muy changement daal di am ci réew mi ñu dem nag ba yegg ca taxaw mel ni di moom delluwaat sol beneen bubbu mel ni ku àndaat ak Macky Sall ak doxalinam ba woon ba noppi wëlbatiku di sànni xeer bis bu yàlla sàkk ñii di waa Pastef te loolu nee ñu duñu ko nangu moo tax ñu fas yéene jàppale Pastef ci élection législative yi Le Soleil yéene kay addu ci législative yooyee di nettali ana lan moo waral nag ñu bëri bëgg doon député daar daar yéene aan bi jàpp ni ñenn ñi moom seen bànneexu bopp kese ak li nga xamante ne moom mooy ngëneel yi nekk ci assemblée nationale moo ko waral donte am na ñenn ci ñoom ñi nga xamante ne liggéeyal Sénégal moo leen tax a jóg li tax a jóg Mamadou Omar Ndiaye mi ñu tabb yees njiital CNRA bokk na ci tëddee njaaxaanaay ndax libération xëy na tey di nettali li xew démb ci passation de service bi digganteem ak Babacar jaañ moom njiit lu yees li ne bëgguta doon gendarme presse bi ba noppi dikkaat na sax ci anam yi nga xamante ne moom lañ ko tabbee bët ak ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye naka noonu ne Ousmane Sonko dafa rek jékki-jékki yëg li nga xamante ne moom lañ ko tabb ci bopp CNRA ci Walf Quotidien moom inondation yi nga xamante ne kon moo xew ca Bakel moom la dikkee yéene kaay wal Walfadjri bi di xam ne ni kon askan wi fa dëkkee ci njàqare gu métti la ñu nekk jamono ji mujj gi sax ay école moom la ñu mujj soppi def ko ay dëkkuwaay l'observateur ne ko li xew ca Bakel boo moytul dina na sax ba OMVS kii ab plan d' alerte nee ñu lu toll ci téeméeri bërëb sible nañ ko ba noppi ngir fas yéene fa dalal ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo loru ci yile inondation Ndella Madior Diouf mi loru ci coowal pouponnière ñeex kaay groupe Futur Média bi dañuy nettali tamit ci anam yi nga xamante ne moom lay dundee ca kaso ba dossier bi nga xamante ne daanaka léegi ñu ndar képp ko doomu Madior Diouf bi di xaar li nga xamante ne moom mooy atteyom di procès bi moom ci wàllu boppam yéeni kaay bi mu ñuy xamal ni moom ci wàllu boppam yéeni kaay bi mu ngi xamal ni génnee nañ ko ci cellule ba mu nekkoon ba yóbbu ko feneen jamono ji tembe rajo bi nga xamante ne moo ko moom di Safir FM jamono ji noppi la def jamono ji nga xamante ne waa Malawi jàppoon nañ ni dañuy am match seen diggante ak Sénégal démb Rewmi Sport nañu Sadio Mané daa di fël tegab coup franc bu mucc ayib dugal ko tax ba équipe bu Sénégal am qualification ngir CAN 2025 bi Les Échos dëggal ko ne kon Sadio Mané démb soowe na équipe bu Sénégal bi li Sadio Mané def démb Sud Quotidien dafa jàpp ni ab coup kaw la bi nga